foog ñu utalee yéenekaay yi daal di xool ñoom itam li ñu xëy fësal tey Grégoire ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey. L'Info yéenekaay incha allah ñuy ubbi waxtaanee mbirug conseil des ministres njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye tabatina ñeneen ñu yees muy ay bopp yoo xamante ni kenn gisagu leen woon ci yëf yu ni mel. yéenekaay bi des naka di ñu xamal daal ne bu ñu ko xaymaa moom njiitu réew mi daal tabatina li ko dalee ca Francis jàpp ARTP ba ca booru ko Dakar dem dikk chemin de fer du Sénégal la SOMISEN COSCAC ak COSEC eh, ak li nga xam ne moom mooy SONES ñëpp jàpp leen ni am nañu ay njiitu yees mu di ñoo xamante ni daal ñu ngi fiy wutu ñenn ci ñoo xam ne Macky Sall jotoon na leen fee teg yéenekaay bi lim na ci sax Abdoulaye Diouf saar kii di Abdou Karim Sall Maguette Sène jàpp Abdoulaye Diop ba ci si Sylla ñëpp jot nañ leen teg teggi teg leen a fële jàpp leen daal ne fi ñu toll nii ay responsable yu bëri yoo xamante ni daal jege nañ Pastef bu baax a baax ñoom ñooy ñi nga xam ne jot nañ leen a jël jiital leen ci lekk poste yéenekaay bi sax des si ñu xamal daane loole bu ñu moytu daal moom moo nar a nekk liy euh, wëy kon mi ngook BDF ma ngay wëyal démaquillage ba bu ñu sukkandikoo ci l'info euh, yéenekaay le quotidien le quotidien la mu ne fang jamono ji moom mooy politique publique ba programme ak fonds monétaire international ñu ngi koy wëyal nguur gi des ak projet cent mille logements sociaux yi lee nga xam ne daal ma nga ca ba ca bourse sécurité familiale kon na fay ma nga rek ca tànki Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci euh, yéenekaay bi di Le Quotidien coowal suuf Sud Quotidien moom moo xëy na ko fàng ci xëta mu njëkk nañu nag atum 2020 euh, ñii di waa OFNAC nag ñoom ñu nga doon rek euh, dànqaafu loole nag mel ni tey ci moom moo ñu mujjee fekk si boobaak léegi daal ñu ngi koy waxtaane carnage foncier bi la des ci euh, askan wi ba léegi diggante Dakar Thiès ak Mbour kilifa yi ñoom ñëpp mel ni daal ñoom ñoo xamante ni bañ leen koy wax bëgguñu ko woon a dégg jamono ji nag yëf yi këpp na seen kaw bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango wàllu ko littoral bi tam bokk na ci lu xëy euh, ci biir yéenekaay yi enquête yéenekaay dañu xamal daal ne liggéey ba ñu dakkal ca boru ko bi ñu ngi koy waxtaane waaye daal gis-gis ya ca tukkee bëri nañ liggéey yi nga xam ne daal jot nañu ko dakkal moom mooy li nga xam ne moom ngay ci réew amul benn sañ-sañ ci dakkal liggéey bu ni mel loolee wute loolu ak gis-gisu ko Alioune mi nga xam ne jàpp na daal ne euh, lii dañu rek euh, des di euh, teg loxo ci li nga xamante ni moom mooy suuf sañu nekk di liggéey ci anam yemu warul wala bokk ña ca teg loxo loole lépp dañ ko war a teg gi professeur Samba Traoré jàpp nag ne jamono ji njiitu réew mi am na dogal boo xam ne jël na ko waaye mi ngi ko duppee rek ab mesure conservatoire loolee la ko tax a jóg daal moom mooy euh, dindi ca bépp euh, lënc-lënc bu ñu sukkandikoo ci l'enquête yéenekaay la tribune moom la mu xëyte ji bokk na ci mbiru mbiruk euh, pagaay bile ci coowal dañuy yére ak foncier bi jàpp leen daal ne Ah, lii di askan week la ca ëpp daal bokk na ci daal la ñuy dut baraamu tuuma moom mooy bi gàlloo wàllu ko finance ñu jàpp daal ne moom mooy patron direct ci wàllu ko directeur du budget ak impôt et domaine lii nga xam ne daal moom mooy seddoo suuf si ñu ngi koy waxtaanee mu mel ni daal lu garaaw la ci wàllu ko ah, askan week nañu koy dundee mel ni daal jamono ji ku ci bëgg daal foo nga am no Walf Quotidien yéeni kaay des ak ñun ci coowal li nga xam moom moo jëm ci milliards la ñuy euh, tasaare ci askan wi waaye tamit ci réew mi jàpp leen daal ne ëpp na ñaar téeméeri milliards yoo xamante ni daal jóge na ci loolee di wàllu ko euh, drogue bi ñu ngi koy recycler daal ci biir immobilier bi ñu sukkandikoo suñu naataango Abdou Kane nekk nag koo xam ne xam-xam màcc na lool ci wàllu ko koom nee nag croissance économique moom moo nekk jamono ji ci mbiru ka euh, ndëgg sërëx ginnaaw coowal foncier ñu waxtaane rapport cour des comptes ak mbir moo xam ne ma mbiruk ah, jiw gi jàpp leen dal ne mafia bile ñu ngi koy fësal ndaxte nag bokk na ci daal ah, lu ca bari loo xam ne daal ci wàllu ko gerte gi la subvention ya ñu daal di koy jox ay jëwrin ak i député waaye tamit ay o conseil yu féete ca collectivité territoriale ba ci ah, ñenn ci ay kilifa diine boobaak léegi kenn mënta joxe lan mooy firnde ga ak la ko waral bokk na ci tamit ay opérateur privé yoo xam ne ku ci nekk jóg nga daal di ca fëgg sa dënn ngir waxtaane lala ca naqar yi jubbanti rek projet ah, bu Diomaye ak Ousmane Sonko projet ba daal bu ñu moyt nee nañ ah, na mu juddoo noonee daal la fas yéene déwé bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi xëy ne fàng ci xetam mu njëkk jàppale daal ne ah, góor si la mu ay waxtaane daal moom mooy lii di wàllug éducation maanaam njàng ak njàngale waaye tamit lii di ko ci aada ah, moom mooy la nga xamante ni daal mënees nañ ci sukkandiku ngir mën a dem ci wàllug ah, développement suñu jantub réew la ñu koy ndar képpe le soleil yéenekaay nañu nag wàllug transport public dem ak dikk ñu ngi koy waxtaane eh, lii di état généraux yi ñu ngi koy xaar rek fileek ñu jëm ci weeru sulet waaye nag ca conseil des ministres njiitu réew mi eh, kii di Diomaye Faye waxtaane na daal loole eh, di initiative ba ca jël la ko gën a dëggal daal bokk na ci fexe ba ñëpp am ab déggoo ci wàllu transformation rapide ci bilek secteur gouvernement bi tamit sàkku nañ ci moom rek ab système boo xam ne dana mën a tax société publique yi di Dakar Dem Dikk ak euh, leneen loole ñeel wàllu BRT ñëpp daal di euh, mën def seen ak liggéey bokk na ci tam loo xamante ni yéen kaay mu ngi koy waxtaane nañuy def rekk ba euh, samp ab lii di transport bu jub te mucc ay Aïcha lii mooy loolu seen xëy fësal ci bésub tey jii am na solo mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam di wax ñu ngi lay jaajëfal. cant ak gërëm ñaan na la yow tamit ba altine incha allah. ci yeneen yéen kaay lay doon merci beaucoup maa ngi lay souhaiter nga passer un très bon euh, bu ko defee ñu woyal matinal bi ak li nga xamante ni euh, moo ji le dossier de Pape Malick Thiam comme tous les vendredis daf ñuy proposer benn dossier donc bu bàkk bi noppee rek ñu dikkaat daal di koy waxtaanee.